asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi dellusiwaat nañu ci jataay bi nu baaxoo am ak yéen ci naafilay weeru koor nu di ko jëlee ci téere Sëriñ bu Mbàkke bi mu tuddee qurratil ayn fii tamyiizi ba'di faraa'idil ayn nu toll ci guddig ñeenteel gi Sëriñ Suhaybu Mbàkke radiyallahu anhu dafa wax ne guddig ñeenteel ga ku ci julli ñeenti rakkaa bu ci ne fatiha ak suuratul kafiruna ñetti yoon guddig ñeenteel ga ku ci julli ñeenti rakka bu ci ne fatiha ak suuratul kafirun ñetti yoon dees na ko bindal tuyaabay jaamu junni nit dees na ko jéggal bakkaaram yépp بلا مو جوغي فما دون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته